yogo yogo mbokki Leewtoo TV nuyuwaat nañ leen ziar leen rek gis ngeen Balla Gaye 2 génn na këram yéeg na si otoom xaw ma ne fan lañ jëm mais am na fu ñu jëm parce que tamit xam nga lamb ji temps yi yàgg bëri na coow yaa ma gën a xam coow laa ngi mel ni bu ma la ko waxati moo tax ñun tamit dañoo bëgg lépp di leer rek xam nga dañoo bëgg lépp di leer lépp lañ bëgg muy leer moo tax ñu ànd ak moom nii Omar fan lañ jëm ginnaaw bu ma la ziaree. Ah, liggéey nii liggéey lan maanaam da ngay defi mécanique wala looy def parce que yow dégg naa mécanicien nga. mécanicien waaw mais li liggéey pour doole. nga yokki kon. ah mais xam nga boo ci dëkkee moom saa waay saa su ne da ngay ba waaw. lan moo war a tax Omar war a yokki doole. Ah, parce que mooy sama métier liggéey doole laay <laughs> wala xale yu bees yi dañoo bari doole. non liggéey doole laay def. liggéey doole moom bon boo def moom toujours da nga war a nekk waaw ah, loolu moo mooy suma métier aussi. saal nga jëm nii. saal nga jëm nii tey jii euh, la nii mooy fan. waaw moo tax mu dëkk si mu mu mu mu mu jóge géejawaay ñëw dëkk golf te yaakaar naa géejawaay nga gënee àddina ma Pikine. non non géejawaay mooy lii yëpp ci géejawaay bokk golf ci géejawaay bokk géejawaay ba Kaas ba rond mu ñu waaw mu yëpp ci si gars yi damay dégg sax ni naan Balla am na kër Almadi am na ko Maris naan lu tax dëkkwul foofu Balla mu choisir dëkk fii lu tax mu dëkk fii. sant rek xam nga tey mënoo juddoo ak say nit xam ne lépp ba pare daal gisoo noonu daal yow. waaw toujours res nekk ñoom. dund ak ñoom parce que même moo amee feneen ak feneen tamit aussi tamit yàlla dogal na fii nga ak ñoom daal yéenay nekk. képpel. <laughs> kon ñu bàyyi waa gis kon mbokk yi gis ngeen Balla dugg na man sax maar ñaq naa tey mais nag kii lañ fi fekk defe naa moo koy yore fii ci salle bi bëgg nañoo xam salle bi fan la nekk ak coach bi nu mu tudd ak kañ nga commencé ànd ak Balla si lu gàtt rek ginnaaw mu la nuyoo ba pare. maa ngi lay fay di rafetlu seen teewaay waaw ñuy wax ci moom du bëri. tur bi man maa ngi tudd Cheikh. mais ñu bari langue si lañ ma xamee. <laughs> waaw yaa dégg. ok donc li may wax ci euh, Balla du bëri hmm? de pour commencer gaynde la waaw ok gis naa nga koy teg lu xaw a tardé euh, tegagum ko dara sax ah, lii ay la quoi lii dañuy door dañuy door a door c'est-à-dire booy commencer doo ñëw rek teg booy tabax immeuble doo ñëw def dix étages doo ñëw rek dem commencer quatrième premier ngay commencer ba ci dix waaw donc euh, premier bi la ñu tàmbalee nii di ñaan yàlla mot lii si des waaw. mais li nga gis nii ci moom sa xel dal na ci moom quoi par rapport su continuer liggéey. Euh, dama lay wax dam leen di wax lenn ci moom man avant ma koy côtoyer man dam ko doon seetaan xool ay entraînement am xool bëreem gaynde du du bàyyi. du bàyyi déedéet. du te gis nga li ma koy teg nii. <laughs> mbaadu xale yi am nañ problème. Euh, walla Tafatine wala Bombardier wala Gris Bordeaux. du seen moroom waay. du seen moromu ñan du seen morom yow. non du faraluma analyse bu ma def la du seen morom. Hmm. wallaay du seen moroom ci bari kii gis nga bu fekkee ne entraîneur dëgg. kenn du ko daan ci ci ci ci ci arène bi. maanaam bu liggéeyee dëgg. moo kenn du ko daan laa la wax. yaa wax lii moo. ñu dara sax. kon ba ci kanam. ba ci sama ko wax moo koy entraîné olof nag nee na la mu saf ko ko mëcce ko xam moo tax mu ne bu liggéeyee dëgg kenn du ko daan Balla am na loo ko subi def loo jot nga ko def muy lu safa safa saf nuyuwaat naa la. waaw Babacar ginnaaw ba ñu sant yàlla jërëjëf sant bi di sant sama ñaar waajur di sant suma Serigne Serigne Bassirou Bara ñaan yàlla yokki leeram te tax ñu ci barkeem. te nuyu waa kër sëñ Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér rawatina waa kër Maam Cheikh Fall ñu yàgg fi loolu te wér Njaasaan njabootu Cheikh na Cheikh Saadu waa kër sëñ Babacar Si waa kër sëñ El Hadj ñaseen laayeen ñëpp daal ñëpp waaw ñëpp ma limi dama juum yàlla defal ñu jàmm di nuyu sumay supporters yi ak sumay am di jàmm yi rawatina aussi sumay encadrement ak sumay saf ku ci mel ni Aziz suma papa Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Fall Simon ak Baye Ndiaye ak euh, ñi nga xamante ne ay Andaw Ndiaye Papi Sané Pape Mamadou Fall rawatina aussi tamit école de lutte Balla Gaye bi nga xamante ne fa laa soqe ko di ñaan yàlla ñëpp jàmm di ñaan aussi tamit euh, Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. di la nuyu aussi tamit ci fi ma fekk tey ma war a gontu euh, vraiment nga ñëw fekk ma ak suma coach yi ñaan ko Cheikh Ahmadou Bamba ñaan ko Lens euh, yàlla dafa dogal tey ba mu jógee IMSS ci la ma commencé entraînement ma fekkoon ko ci beneen saal yàlla mi dara teewul cofeel gi ma am ci moom ak bëgg-bëgg mu ñëwaat fekkaat ko fii sama xol sedd lool mu mel ni sama diggante ak sama cofeel bi ma doon bëgg mu ma jege yàlla dogal na ko tey te xam naa ne li may daj ak ki fa fekk moo ko Thiam ak Assane Thiam bi nga xamante ne aussi fekk naa ko fii gymnastique bi ak euh, ñu may entraîné waaye xam naa ne nit ku baax la bi nga xamante ni vraiment bu moo gisee sama xol day sedd damay am envie entraîné parce que li may teg la kon maa ngi koy ñaanal wér ak wér lay ndax bu wéree rek man sama sama njëriñ la. ak ñeneen ak ñeneen na waaye man dama ko féete sama bopp pour mu wér di nuyuwaale gi aussi sama xarit ak kante ja Badiane waaw ñooñu ñu ngi leen di nuyu gi ak Kanté mais di nuyu sa gars yi ngay àndal muy Cheikh ak baay Fall ah. maa ngi leen di ziar sama gars yi waaw. Cheikh Parkil ak Laye Mairie. laay merci laay mairie laay mairie kan moo ci lay mairie Baye Fall Baye Fall bi waaw <laughs> am na solo mais dama ñëw tey fekk la ngay liggéey macha allah mu mel ni Balla mu ngi pare saison bi fi mu nekk nii parce que li ngay def nii yaakaar na kuy pare saison moo koy def ak ku xelam jàpp ni dina bëre ren waaw man toujours rek kon ni ma waree nit ñi di xëy yor seen bureau di xool ba xam dañuy dañuy am sànce wala dañuy am liggéey di ko am noonu laa jàppee ne man dama war a dem liggéey ndax liggéey bi ma yor day bette donc vraiment luy bette nag aussi da nga ciy nekk chaque jour bu ëllëgee nag loo ci fekk rek nga mun cee avancer mooy ñi may faral di wax rek mooy ñi ma li ñu ma sant mooy sport gis nga li ma sol nii kaw ba ci suuf si moom moom moo jox moom lépp lu entraînement bu fekk may ngi entraîné rek moom xolam day sedd bu dee dàll moom moo jox bu dee ensemble bu dee lu mu ti doon rek moom sport moo bëgg a def bu dee mbay noonu. bu dee Talla Mbengue bu dee Aziz c'est la même chose rawatina aussi tamit ki ma fi fekk mu gën ma ko bëgg xamul ni di nga bëgg sa bopp mu gën la bëgg boppam donc vraiment li ma war rek muy liggéey man. ah si li mu la jox rafet na la bëri jam si rafet na waaye mayo bi tamit wala sax blouson bi am na solo mais tamit Balla dinañ wax ci leneen mais tamit dafa am loo xam ne buñ ci wax xam naa nit dinañ ñu mere. mooy sa diggante ak Boy Niang coow daf ci bari fan yi coow li jóg ñu xëy dégg ne Balla ne na bëreetul ak Boy Niang ndax defu fi dara ñu toogaat ñu ne sa papa génnaat ci journaux ne loolu Balla wax du luy nekk maanaam dañuy bëri ñoom ñaar loolu lu ci Balla mën a leeral Sénégalais yaa wax lii ak li sa papa wax noo ko gisee. man sama kàddu chaque jour benn kàddu la musuma wax ne du ma bëri ak Boy Niang dama ne sañ ma laaj sumay adversaire ma ne leen sumay adversaire Bombardier la Tapha Tine Gris Bordeaux parce que man tey bu ma nee taxaw naan du ma bëri diw loolu yaakaar naa respecté wu ma sax suma bopp aussi tamit euh, li ma war rek ak li ma bëgg moom laa wax ah ñi nekk suma kanam ñooñu laa lim mais bu ma waxee loolu yëpp sama bopp la mosuma wax aussi tamit boo ñaa du mbër mais dama ne en tout cas man li may def aussi ak li may wax dafa méngoog li may def mooy def naa fi li fi mbër deful am naa droit am suma choix am droit ni kii laay bëre mais ba léegi wax ko xuma kenn ci tele wala ci rajo ma ne du ma bëri Boy Niang. maanaam daal kon da ngaa limb Bombardier Gris Bordeaux ak Tapha Tine ne ñooy say adversaire waaw mais moom nekk moom mu ngi ci sa trajectoire taxaw ba tey da booy Niang. waaw loolu àgguñ fa xam nga lu ñëwagul ci tamit duñ ci débat man li ma war rek mooy dama yor encadrement yor SF wax ju bëri sax wóoruma pour may waxanteeg benn mbër boo xamante ne wax dëgg yàlla ah li ma def jéggi na doy par rapport ak ak ñoom. waaw may wax nii walla nangam waaye man làmb laa fi nekkal askan bi laa fi nekkal lu ñu bëgg rek pare naa. sa papa li mu wax ne da ngay bëri ak moom. non man loolu nag wóoru des na maa wóor xam nga nit tamit da ngay la wóor ndax sama papa wax dëgg yàlla actuellement nii mu nekkee nii sax moom mag la du ci bëri du ci dugg te bëgguma ko di dugal ci làmb waaw te yenn ñi booy wax dama yow lu may wóor yëgu ma bokk sama papa fu muy xee loolu. waaw wax dëgg tey itam parce que ñun xibaar rek la ñuy wër di ko wax moom la ñuy gis bu ñu ko gisee dañ koy jàllale xëy nañ gis ko ci journal suñu làmb ak fa bëri na fu mu wax mu nekk moom du la taggal say maam ngeen bëre ngeen ñàkk bëri loo ci mën a dégg mooy bis bu ngeen bëree dina la jox fond bi ma nga naan ci ba ci lees mu taqal la ko moom moo ko waxal boppam tey ci journaux yi. waaw yooyu moom wax mbër la xam nga Balla Gaye ñu ne fi ay doon keer ay taxaw maa yooyu yëpp fi lañ ko fekk ay slogan la rek waaye xam nga Balla Gaye moom wax dëgg yàlla wax nee na lool nag xam moom man moom day fekk nag yi tamit vraiment ma war a jëflanteel koo jëflanteel ci ay wax yoo xamante ne war ngeen koo mën waaw waaw làmb rek la ñu seek te cër laa ko jox te daf ma koy delloo far force eh, ndax lu dul làmb seekuñu ko waaw poti ko andi moom waaw. daal. waaw ci li ñuy wax. ci li ñuy wax dala ah yow magoo booy ña. non yaa ma laaj rek ma wax la ko. waaye yéen ñaar kon moo mag. dafa maa wóor man wóor ma déedéet. mais dama seetlu leen lan mooy seen problème parce que booy dañu leen sëkkatal barki dem gis nañ tafaatin rëg-rëg tënk ko ba xol yi jóg gens yi dégg booy ña jaar jaar fële ama moom jot na am na ku mu encaissé muy motuloo xale yi dañu leen sëkkatal ren de ma ñu leen fu ngeen yekke seen nak lu xew. non ama dafa prouvé. Amada Pourfé daa dugg ci kuréel grand yi daan benn grand daan tawatin aussi du dëgg daan ay moromam daan soos daan guy gi ci kalaaf daan Papa Sow donc mu Pourfé aussi mu war day murlo mais ñi ngi yoon ñëpp ci bëri xaaj bi boobu Pourfé mais xëy na làmb day toll mooy nga xamante ne nit ñi dañuy bëgg lu bees. bu booy ñag ne la moo lu tax nga wéer nga jékki rek wéer ko nii na dootoo bëri ak moom waaye yow sa nga loolu waxoo ko. waxuma ko nee naa la kenn du dégg ma ne loolu waxoon naa ko benn yoon te loolu lu ma lu ma rëccu la benn laa mu sox ci Modou Lo à part loolu mosuma ko wax te loolu bon mer moo tax ma def ko même bu ma meroon sax ba bañee ne du ma bëre kii du ma taxaw ci rajo di ko wax rawatina nag may wax naan koo xamante ne tey làmb on sait jamais làmb yaa de hooy de ba parce que àdduna moo demee noonu mbër bu man bu ne du ma bëri diw rek respecté woo sa bopp parce que gagne-pain la du ma mosoo wax ne duma bëri diw waaw loolu moom du ma ko wax waaw te lu bees moom ñëpp ko bëgg aussi. lu bees ñëpp ko yow noo ko gisee Reug Reug prouvé na lu tax mu war a bëri Tapha Tine. ah ñoom la rek après da leen koy laaj <laughs> waaw. yow bëri nga ak xam nga Tapha Tine aussi champion la bëri na ak roi des arènes deux fois bëri na ak ancien roi des arènes ak man bëri na ak Bombardier bëri na euh, dugg na. Ah, mais mun si lii moo gën a gàtt mais Eumeu Sène bombar euh, Tapha Tine combat la Eumeu Sène Bombardier combat la Bombardier Tapha Tine combat la waaw. Tapha Tine Balla Gaye. combat la aussi. dafa nag dégg naa ci waxi ni ñu da ngeen koy daw actuellement muy yow muy Gris muy Bombardier muy Eumeu Sène dégg naa ñi mu ngeen lekk avance am te ngi fii ci dëkk bi taxawaal. non da laaj ñu mus sa lekk avance lekkaat kay la wax yow kay mës nga koo lekk waaye lekk lekkaat ki kay la ñuy wax nii. moo tax may ne boo nee danga coo ragal da moo tax may ne. nit ñee koy wax de man waxuma ko de yóbbante nit ñi laa la indil man kay xaw ma ko ñemee ko ragal Omar. waaw d'accord léegi nangul naa la loolu waaye da ngay laaj nit ñi comme ñu ko wax yéen laaj ku mus sa lekk avance peut-être mën nañ koo ragal waaye man lekk na waaw ma lekk bu ñëwaatee. ma lekkaat ah waaw ah, mis naa ko. waaw giri moom sa waaje moom itam amul ngeen fi tàkkusaan gu tara stade Léopold Senghor moom yóbbante mi leer na moom deux secondes moom moo ma ko wax non astafurlah deux minutes la wax bi yoon moom dina boo ko lekkaatee moom tama dina ay buum wala tama du lëppi buum waaw lépp naa nekk ndax giri moom champion la man aussi champion la li ci solo mooy ni ku baax la làmb moom fu ñu boole rek aussi ñu war a bëri dañuy bëriwaat waaw yéen ñaar daa am ko bëgg seen revanche est-ce que bëgg moom. kii moo la ko gën a bëgg. waaw bëgg na ko de. yow bëggoo ko. non man du ma dàq mbër mooy sama métier waaw. amul daa promoteur bu lay contact la waxoo ko Gris Bordeaux. Hmm, ba ci démb démb rek am na ku ci contact ak sumay encadrement. waaw hmm. ban promoteur la. xamoon na ko dëgg yàlla. waaw bu ma la ci waxee dama jóg. <laughs> yow mii actuellement sa encadreur lu ngeen waxtaanee pare ngeen ngir lekk avance su Gris kon. waaw non nañ pour mbër yëpp ah. Gris wax Gris mi ñu la contacté waaw non pas Gris nekk yemul ci Gris rek donc daf ñu tegal ay sart ay adversaire la teg bon léegi encadrement bi ñooy xoolaat ak staff bi. kan mooy premier choix bi ci adversaire yi. non ko nag parce que man dañ naa ma bu avance sawoon tey man duñ ma tàggu dañuy dem rek jëli. ñoom Aziz quoi ñooy jël ak. Aziz mooy lépp lu ci war moo koy def. mais indi nañu turu Gris indi Bombardier indi Eumeu Sène ak Tapha Tine. non kooku bokk ci ndaama. ndaama la lu tax nga ko ciy génne. non moom génne na ma ci affaire ah, moom est-ce que nu mu la ci génne yow itam Balla la ciy génne. waaw kat Sénégalais nga waaye tamit bàyyi li ngay def. ma seen yéen ñaar waru ngeen a def label. waaw ah, mais moom génne na ma ci garaaw li si bi man bokkul ma ci. da ngaa mel ni kuy mbalak de. non man ma ciy génne kenn lu laaw ñu man. maanaam kon yow daal fi mu nekk nii seen ñaar yéen ñaar seen combat jaratul. maanaam moom nee na moom bootul bëre. mais yow bu nangoon nga nangu. non ah non no moom gor la du def yooyu. moom góor daa ñëwee nangu. la nangu. déedéet sax nee na mokk suuf na waar. man de gis kuy fer milliard ngay mokk suuf moo ko <laughs> baaxul ci suuf de moom doy na waar. ak mu neexee. Ah, xam naa li mu seede bañ bëree ba pare li mu seede moo neex. mais est-ce que la daan ñaar yoon moo tax mu yaakaar ne day yombaat rek moo tax jaralatu ko. non non ah moo la gën a xam nu mu yoon. ma yàlla xam ne ndam ci man rek waaye xam ne moom mooy loolu. daa mën a bëri nag Balla ma man na bëri de Balla. naa ko de ak ma koy nangul daan Balla Gaye deux fois. naa ko ma koy nangul ku mun a bëri la wax dëgg yàlla loolu kay amul dama ma ñëw. est-ce que du loolu ci la sukkandiku ba tax mu ne seen diggante jaratu ko. waaw ah non moom la rek moom la rek garaaw làmb la ah. kon moom xam naa kon yaa ko génne ci liste bi mais ki nga xam ne ni moom mooy a <laughs> ah, yaa ko ci génne di ndax nee nga moo la ci génne. xam nga ne man génne ma ko ci nga ne man génne ma man làmb man mooy man dama bëgg làmb am ngëm gëm bi am ambition bi am bëgg-bëgg bi am objectif xam nga mbër mun na doon mbër te du am lii ma limal yëpp mbër mun na bëre teel a doyal man bokkuma ci mbër yooyu fekk maa ngi nekk mbër fekk maa ngi loo xamante ne yàlla suñu borom moom mooy may wér dinaa faral di entraîner dinaa di entraîner ndax am doole am kàttan waaw ndax dama ko bëgg dama ko doon ba pare bëgg ko waaw. solo Omar kontaan ci yow. mais bëgg naa aussi tamit ci yow ndax euh, kenn nga si journaliste yi laaj bi day normal te lu normal rek ngay def même lu normal sax doo ko wane loolu moom xam naa ko moom. kon ñoo ngi la koy nangul et puis di la ñaanal jàmm sa liggéey rafet na nga am sa équipe bi mais équipe bi bëriwuñ de quatre personnes lañ cinq quatre waaw waaw Moodu Maane waa maa ne kay képp sant moom sasa nga moom ah Moodu siyaar naa la ak ak Faale Mansour waaw ak ak sa macha allah waaw kontaan naa ci moom yàgg di la bëggee bu baax di bëgg ci saal bi nga xamante ne aussi fa laa nekk Euh, di leen ñaanal jàmm.